li ma indi fii tey nag Kaolack euh, mooy dama ñëw euh, yaakaar naa ne ñëw naa fi fan yi euh, pour ci mbënd mi ñëw daal di saafonteeg ak tamit mastaw ñi nga xam ne tey jii dañuy dañuy dund mbënd mi muy lu métti muy lu métti loo xam ne dal na si kaw sénégalais yëpp. rawatina fi nga xam ni fi dëkk muy Kaolack donc ma ñëw di leen massawu waaye tamit di indi tamit euh, euh, loo xam ne dina leen mën a euh, jàppale. parce que fa mën na am kat xam ngeen ne lu bëri dina fa jóge ci ndund yi gi mën na yàqu la nga jëntoon si ceeb. bu doon jant nga suukar dina seey bu doon jant nga saabu seey na bu doon ceeb yàqu na bu doon pat tamit seey na donc ba nga xam ne euh, ma ñëw indi li nga xam ne rek mooy sama euh, asaka yéene donc indi li nga xam ne mooy ceeb donc mu toll ci fukk ak juróomi tonne indi tamit suukar donc mu toll ci cinquante cartons indi diwliñ muy cinquante cartons yoo xam ne de vingt litres la indi tamit pâte indi ci lu toll ci quatre vingt donc euh, sac sac boo xam ne def na bu ci nekk cent cinq ñaari sac de cinq kilos donc indi tamit li nga xam ne mooy suukar muy fukk ak ñett saagi suukar yu cinquante kilos donc loolu laa fi indi tey donc pour jàppale ñi nga xam ne ñooy ñoo nekkoon ñoo loru ci mënd mi mu ne ci quartier yëpp nag parce que fii kaw Kaolack euh, on les a dajale wuñ leen si benn bërëb kenn ku ci nekk fa nga nekk dañ la fay fekk jox la li nga xam ne mooy ndimbal li donc euh, ñu naa tamit dem ci daara yi ndax am na daara yoo xam ne tey fukk ñett daara yoo xam ne euh, dem naañ fa donc jàppale jàppale leen daara yu nekk ñii lew na ñii nekk bustaan ñii bushra ñi abattoir donc ñii pël ga ñii gi ma dëkk donc kenn ku ci ndaara bu ci nekk ma joxe fa euh, dix sacs de cinquante kilos ceeb. joxe fa tamit li nga xam ne mooy euh, suukar euh, six gros six cartons suukar. joxe fa tamit li nga xam ne mooy saabu donc euh, six cartons saabu joxe fa tamit pat tamit donc pat tamit joxe fa six pat donc xëy na xëy na bëriwul mais am na loo xam ne mën na koo jàppalee borom daara ji nga xam ne dafa jox ay taalibe nekk ak ñoom di leen di leen dundal. donc loolu daal moo waxoon mooy waxaloon tànk tey tànk Kaolack yi pour nemmeeku askan wi donc daal di leen masawu ak tamit jàppal leen euh, mu néew mu bëri. Euh, xam nga assemblée national euh, ñama fa teg mooy askanu Sénégal. Mhm. bu ma ne askanu Sénégal góor ak jigéen la bu ma ne Sénégal Kaolack ñoo jiitu. ndax ñoo ma fal ñoom tamit kon tey euh, bu ma fa taxawee lépp loo xam ne war na saafareel suñu jafe-jafe fii ci Kaolack dama ci wax a taxaw lu jëmee ci euh, problème assainissement ñëpp xam nañ ne dañ ko yàgg dund donc muy loo xam ne euh, dëgg la mu ngi fi waaye on a vu que gis nañ ne am na am na ay amélioration mooy am na ay tan tey boo demee tey xaaxun nam doon mel daaw mel ko ren tey boo demoon terrain terrain déggoo ba nam doon mel daaw mel ko ren ak feneen ak feneen kon loolu tamit dañ koy sante sunu sunu sunu kilifa yi ñi nga xam ne ñoo yor réew mi da ci jiital le président de la république le président Macky Sall parce que euh, tey Kaolack tey dafa bokk ci programme dix villes mooy dix ville yi nga xam ne mooy fukk villes yi nga xam ne fukk dëkk yi nga xam ne dinañu am euh, programme d'assainissement buy tax assainissement problème du fa amati